bile ci dëkk bu sell bi di Touba bu ñu waxee lu jëm ci wàllu ko jënd ak jaayum gerte xel yu bëri dem ci bërëb bi ñuy wax gaar bu mag bokk nag ci marché yi nga xam ne nag moom moo gën a mag file activité bi di fi dox bu baax. ndigal fi indi woon marché bi ndax marché bi Cheikh Abdoulaye moo ko tracé woon. waaw xam moom mbedd mi. mooy 28 ngay dégg. maanaam li commencé nii suñu buntu euh, bi bi fi lii amagut soo masaa taxaw nii kër si Moudou Mamoun Mbacké moom nga xam ne mooy xàll bi lotisation bi fi Sëñ Fall defoon noonu la demee woon mhm. waaye nag comme marché bi comme dëkk bi moom ko fi toog na ngay tooge bi sëñ Abdoulaye toogee mhm. la leen fi indi marché bi mhm. marché moom damay faral di wax tamit naan nit foo koy yëkkatee tamit ah, na nga ko wutal fu mu nekk waaye tamit tey ma yëkkati diw rek tey ma yëkkati diw fekk booba def na alalam ci ci ci marché bi ba noppi te waxoo lu leer pour yëkkati ko te nit saa yoo ko waree yëkkati ci mbir war nga ko teg fu leer terewul nag am na ay jafe-jafe yu nga xam ne rax na gileeg liggéey askan wi dëkkee ci marché bile di ko jàmbet muy poussière bi nga xam ne boobaak léegi ñi ngi koy noyyi muy dugg seeni kër di leen andil ay loraange. poussière moom ku nekk xam na ne baaxul ci doomu aadama waaye nag boo dee xool ñun ñi nga xam ne ci milieu bi lañ dëkk ci lañ judd waaye poussière tamit doon na loo xam ne doonul loo xam ne loolu lu lu baax la ci ci ci doomu aadama ndax euh, lu mel ne wér-gu-yaram geeg xeet yooyu yëpp ak. Euh, place yi seen oto yi nga xamante ne ni dañ koy euh, gaare ci buntu kër jàmbur yi ba nga xam ne booy génn sax da ngay am ay jafe-jafe génn ak yooyu yëpp. ñuy liggéey ci gerte gi gis nga dañuy am poussière ak yëpp waaye teewul dañuy takk masque buñ dee bees dañuy takk masque ak xam nga ne mën noo ñàkk liggéey ndax lii li muy metti metti ci la ñuy dimbali suñu njaboot. waaw kon nag une fois buñ dee liggéey gis nga kenn ku ne na ngaa yor sa masque takk ko ci sa moom bu doon couvre-feu bi sunu masque dañ ko yar di ko takk. bu ñuy bees takk suñu masque bu ñuy bees buuse takk suñu masque waaw ndax teel a ñuy liggéey. di ay jàngoroy dënn jàngoroy xol yu nga xam ne rek ñu bëri ñu nekkee file nee nañu dey bu ñu demee kër docteur dañu koy wone tey nag jàpp nañu ne la ko sabab du lenn lu may engrais bu jaxasoo bi nga xam ne moom la ñuy noyyi mel ni lu ko dëkkaale. ñu ne poussière bi baaxul ci wér-gu-yaram baaxul ci poumon baaxul ci tamit ci santé mhm. nga xam ne comme tey par exemple euh, euh, corona bi nga xam ne ci la ñuy takkloo masque. képp koo xam ne da dëkk ci millier bi rek ku war a takk masque nga parce que poussière moom baaxul ci ay pomo baaxul tamit aussi ah, ci ci xol. mu nekk nag jafe-jafe gi nga xam ne yàgg nañu ko jànkonteel mel ni nag saafara da cee tëti ci bokk na ci li ko sabab borom place yi la dey yenn ci borom kër yi ñoom ñoo leen ko jox. fii moom wax dëgg yàlla du bu gerte parce que dafa moog jumaa ji distance zéro mètre waaw te it kilifa yi dañ fi jaar à chaque fois. moom daal bari na ay gàllankoor ndax wax dëgg yàlla am na ci ñoo xam ne nii mën naa am du ñëpp sax am na ci koo xam ne sax mën na maa mu tudd turam ko mën na maa bañ a tudd turam sax waaye bu ko déggee na ko xam mën naa mas naa bàyyee place am engrais ba mu fees ba bëree bëree bëri poussière am engrais ci buntu jàkka ji la ko la ko sotti keroog sama waa kër ñi bi ñuy balee jàkka ji dama ne leen bu leen bale wet googu ndax dafa tombeek nawet nga xam ne boo ko nooyee rek day day dugg day dugg ci sa biir waaw yooyu yëpp dañ ko fiy sotti waaye wax dëgg yàlla tamit euh, seequñoo euh, waa marché bi lu dul parce que jàmm tamit ci la lépp xaj waaye comme li nga xamee seet nii ci wàllu wér-gu-yaram lay dox ak ak santé ak li nga xam ne ñoo ngi koy dund ci marché bi moom du wàññiwul dara ci ci ci nga wax ko. ñoom ñi nga xam ne rek jàpp nañu ne mbir yooyee ñoom ñoo ko sabab ñoom itam mel na ni mbir mi dañu ko woyofal lool di xam ne nag mbir mu fi yàgg la tey nag ñoom ñi ci yëngu sax moom la ñuy dund. nit ñi li ñuy dund mooy poussière poussière bi nag demeetul noonu wax dëgg yàlla mais tey wala ngay togg poussière bi di ci di ci di ci di ci dem waaw loolu tamit euh, ku ñu ci dimbali tamit euh, ñu ñu ñu jël. a euh, jur gii sax léeg-léeg ñu teg fii ay saako yu engrais lekk ko daal fii ñu ko lekkee la ñuy daal di la daanoo waaw la ñuy daal di faatoo loolu yëpp teg nañ ci suñu bët mm-hmm. ak suñuy gone fii sama doom ji yem na fi ñaari doom yu faatu yoo xam ne nii mm-hmm. cancer lañ lañ lañ leen moo leen moo leen faat bët yi daal wax dëgg yàlla mu xam naa ne am na ci yu ma ci noy yoo xam ne nii mm-hmm. boobaak léegi mu ci laa tàmbali yëgu metit ba léegi mm-hmm. bu dee nag lu jëm ci wàll ko toxal bërëb bi yóbbu ko ci feneen ba léegi rek ñenn ci ñu ngi koy xaarandi waaye nag la ñu umpale moo di bërëb yi nga xam ne fa lañ leen nar a yóbbu laataa loolee nag jafe-jafe gi di wéy askan yi nga xam ne rek ñoom ñoo ndëkkee file ci gaar bu mag di jànkonteel ay jafe-jafe yu metti tey nag la ko waral di poussière bi nga xam ne moom la ñuy noyyi boo bàkk léegi ay jàngoro yu bëri tàmbali di ca feeñ